<laughs> Arou Mbede e Abi Ndour naa la. namu ma e Abi oto bi sedd naa e eh, Bruno est que duñ ko dawloo tuuti. avancé ah, avancé yaa ngi bloqué circulation ayca kaa ñu daw. Bruno man si hip hop bi. hip je veux que ñu libéré Ngaaka. tu voudrais vraiment. oui. ñaan ñu libéré ko parce que ndog-ndog dafay am ci àddina euh, ñu dawal ci yërmande. bu defee ak bu deful yëpp nañ dawal yërmande kii dawal yërmande kooku moo ëpp hauteur donc euh, grandeur donc ñu koy ñaan di ñaan président de la république du Sénégal le président de tous les sénégalais Macky Sall je parle au nom des artistes ñu ngi lay ñaan te yàlla rek a tax nga libéreel ñu Ngaaka Blindé je le connais pas ah musuma ko gis mais j'adore ce boy. boy quoi. Olofin Ngaka Blindé live and direct et eh, Abi Abi yaa nga dem àjjana suba wala ginnaaw suba sax bu la neexee. sawaay gos bi mënu leen koo contrôler gos bi nii moo leen di contrôler ba bu ngeen ni dee.